عليك صلاة الله ثم السلام فطرها مجد عاشق فيك واميق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ñu ngi ñaan yàlla méngoo suñu mbir ci zaahir ak baatin di ñaan ndimbalam ci lépp luñ nekk ak luñ bëgg a dugub lépp yal na ci yàlla nekk suñu ndimbal. ko baat di leen gërëm bu baax a baax di leen ndokkeel ci bés bi nga xam ne bésub siyaar la muy bésub ndolleeku ci kër Mawlana si Ousmane bii nag siyaar la boo xam ne tey li siyaar yi bari bari bari bari bari bari bii mooy bi nga xam ne moom ci dundab baay ci la xam te baay moo ko mayoon bay bay te seer bi film wala ma fekkoon nag dara réeruma ci waaye nag lim ko ko mayoon mu nekk nekk seereem moom Cheikh Serigne Mbaye ba muy wax daf ne moom siyaare wuñ ko dafa am dafa ànd ak taalibe bi di siyaare waaye siyaare bi bàyyi moom kon dellu na lépp léppam bàyyi nag loolu ba tey lu nii ñi nga xam ne ñoo ko sosoon di des yàlla ba tey ñu bëri dem nañ waaye seeni doom ba tey ñoo ko yor di sa sëriñ Mbay nag 72 la 73 hmm. yàlla def bu àddina bi mu génnee àddina. bàyyi ci boppam mu ne nga ñëw kaay moo ñëwal boppam samp alaaji baraan hmm. ah, hmm. ñaare man fuñ ma laajee hmm. foog ma tudd ma tudd alaaji baraan waaye maa ngi seede ci yàlla ne tudd ma ko ci bëgg ak mbokk wala ma tudd ko ci cot collo ma bëgg ci lu ko neex tax ma di ko tudd hmm. daf ko jëf rek su ko jëfutoon xam naa maandu noppi hmm. loolu moom sama diggante sama borom laa ko seetloo amul benn palaas boo xam ne maa nga fay wax hmm. tudd ko ngir bëgg ko yëkkati walla ma tudd ko ngir ak mbokk wala ma tudd ko ngir bëgg wax ji bu eggee ci moom mu gërëm ma ah, soxlu ma lim jëf rek laa wax hmm. te jëf ji yàlla def na musuma ko wuute depuis ba léegi hmm. ngi ci amul benn seere bu ñu mës a def fii muy seere bay bay bii hmm. mu fekk ma tukki fu ma mës a fekk rek fekk na ma ñib si ñëw fekk seere bi dara njëlbeenam ba fi ñu tong lu fi suñ bàyyi baxoon xam naa ko waaye lu mu ci dolli moom it xam naa ko yii may tudd yëpp nag daf koo liggéey te dama ko wax waaye ko waxee loolu ngay wax ndax ñëpp ko seede bàyyi mbay bi muy gën àddina néegi banque tiwi la fi ba am tey salle ak cabinet la ak ñaari ak ñaari pantere tey boo duggee ci néeg ba tey gan gum am lu mu foor foor foor gan ak diine gën ak nguur ñëpp mën nañu fa dal kër baayam gi ba mu tojee néeg baayam tabaxal na ko hmm. ñaari xay yu mag xay gu ndaw ak xay gu mag ñoo fi nekkoon bu jotaay yi amaan ci ron kër yi la toog li mag ñi wax ne ñitu sa jamono moo gën ñitu sa baay xëy ab dundam bu yàggee dafay lekk ci biir li ko war a ci biir la koy lekk du tere yaram wi rafet waaye bu ko lekkee ci biir ba garab gi adduntu banqaas bi buy buy daanu kenn du ko yëg te mën naa lool loolu moo tax mu buddi ñaari xay yëpp ku xamutoon ñaari xay yi fi newoon kuñ ko waxut doo ko mën a xam waaye ba mu ko fa dindee ci lin bii ñu doon defee siyaare bi léegi moom la fi remplacé jàkkaay bay mbay ji ba léegi boo demee poto bi bi newoon ci digg bi hmm. xen xoon xëdd bi ba léegi ma nga fa taxaw yaakaar naa gis ngeen ko hmm. moo doon jàkkee benn ji ba mu ko dindee tamanu jumaa joo xam ne mat na jàkk ji juróom fukki yoon mën na ci dugg loolu du tëggaate da ko def ñu wax ko tabax na hôpital ñi doon dox pour ñu am médecin bu fa ne man mi ci laa bokk ci la ma boole woon ba tey am na médecin am na sage-femme mu ngi fii loolu paasee tabax na marché soo demoon koy suba dem boo demee da nga ko fekk nit ñaa ngay jënd ko jaay tabax na daara moderne tabax na daaray alquran tabax na daaray franco arab franco arabe bi cere ba mu koy rëdd heure bii ñuy wax ak yéen man maa ko yóbbu ci sama 65 bi bañ eggee mu rëdd ñeenti classe bi ma ne kii day day fond bi yàlla ji daa ko taw lépp pare na bañ ko dugg mu toppatoo suuf si ne ci biir Madina Madina Ñaseen mm-hmm. def ko muy ñetti téeméeri kër ak fukk ak ñett 313 parcelle moom la ko dox yàlla def mu ñëw Madina Baay toog ca ron mbaaram ma man mii maa dem néju ko mu toog ba ci mu ne man de damaa xalaatoon kër sëriñ bi néeg bu nekk ma jox leen kër lii la wax ñaara yàlla kenn ñetti luñu waaw ma ne ko ah baax na de waaye yaakaar naa xam ne lu gën a baax de mu ne ma loolu lan la ma kër yu bëri nañ te gi bëriwuñ te kenn ku ne nga may ko mu ne ma mu loolu laay def koo suñ jarbaar Ahmedou doomi Hilimaan ñi ak maam Dior suñu jigéen képp ku sëriñ Mbay Ñas jur ngay góor ngay jigéen alaaj baraam may na la sa kër kër te jox na la numéro bi tey la ci gën a nekk kiimtaan bu fekkoon ne bay mbay moo fi bàyyi suuf si mu jóg bor na ko bu la joxee mën ngaa sikki sàkk ne xëy na dafa dafa bor na suñu suuf si bàyyi jox ma sama àq waaye ñun ñi dëkk kër ma jibéen xam li fi bay mbay doon bay ak li alaaj baraam toppatoo ba jotee amul benn pepp bu ci bay mbay moom wala moom moom ko wala keneen moom ko te lépp moo ko toppatoo ba état jox ko mu dog ko ay kër kon dama laa bëgg a wax ne képp ku sëriñ Mbay Ñas jur du góor du jigéen ku nekk alaaj baraam jox na la kër nga liggéey jox na la kër nga ñàkk liggéey jox na la kër man waxuma pour ko daf koo def rek ma wax ko parce que fi na ma fekk suuf si itam xam naa ne du ndono moo ko toppatoo loolu doyut mu ñaanal suuf gis ne ëllëg jamono ñi dana deele fu mu jafe a xam naa bi jaag boo demee ajame am na fa dugoo boo xam ne ña dem ña dem Côte xam nañ ko xat mu jot ñaari xat ñetti at dañ gradé dana ñëw mboolem kuñ fa suul lépp ñu sulli ko dajale ko lakk ko nit ñi commencé ak suul am na Abidjan am na ci place yoo xam ne boo suulee da ngay fukki at bu fukki at yi jeexee te fayatoo ñu dindi ko la la ne foofa mën na doog egsi mu mu udd waxtaan ak ñoom bañ d'accord ak moom ñu daal di libéré ko foofu bi nga ko libéré muy ñaar fukki hectare ci la préparé pour def ci université boo xam ne ñëpp ci xemoo ñëpp ci xemoo lii kon jar jar na bi bay mee génn àddina daara ji wax ñuy noor ji wax nooru suba man ma suma xam daara nooru suba ci làmmiñam laa ko liggéey moo ko dëkkaliwaat mboolem doomi bay mbay yi ndaw yi ñi ci ëpp fii lañ tane ci Nourou Salaam kon nag bu yooyu yëpp kenn du ko sànni tey lañ ci gën a neex mooy dénkaane bi ñu ko dénk xam na fu lay fag gëm na ko te xam fu laa fay daal téye ko te xool ci kenn nag kon wax dëgg yàlla li may wax man ñun dañuy gërëm Cheikh Serigne Mbaye bu baax a baax a baax ndax ñun daf ñuy jox indépendance ñu ngi mel ni kuy colonisoon mu fexe ba jox la indépendance ñu am ne indépendance parce que indépendance man na passé am tribune waaye nag nit dana am indépendance te du am liberté mais El Hadj Birame bi mu ñëwee fexe na ba suñ indépendance bi am mu fexe ba am liberté liberté mooy du sët du doom amul kenn koo xam ne tey da nga génn foo mën a dem. boo yaafusee boo lëggee boo lëggee amul kenn ku la yedd ne seen kër maam nga wala seen kër bàyyi nga nangam kenn du ñu yedd fen te ku ne ngi sa bopp yàlla rek moo tax ko waxuma benn baat boo xam ne bëgg bu neex ko damay wax xew rek yàlla moo tax ma dem dégg bu njëkk buñ ñu amee soxla dañuy dem alfayda wala wala rajo Kaolack boo alfayda amagut ñu dem rajo Kaolack def nangam léeg-léeg ñu dimbali ñu man li ma dem fii faatu ki ne yooyu du jeex mu góorgóorlu ñu naan dana sotti du sotti rajo bi kañ la sotti kañ ba rajo bi xëy wax ñu ngi nii foo toll jàpp rajo Tawfekh bu fekkee da nga ne journal nga jàng mais pour wax la mooy rajo baa ngi nii loo bëgg wax mën ko cee wax. bu fekkee su su journal pour bind am na journal officiel boo xam ne loo bëgg a bind mën nga ko caa bind bu fekkee da nga ne conférence nga man tribune baa nga ne le bu fekkee da nga ne gàmmoo nga man bayal baa nga fekkee da nga ne jiite nga man mooy la jumaa jaa nga ne bu fekkee njaay génn nga man mooy la marché baa nga ne le bu fekkee médecine nga jàng faj nga man mooy la mooy la hôpital baa nga ne bu fekkee mbay nga man mooy la tool yaa nga ne sa njàng bu bu bu demee ba ëpp njàng mu ne mu université xanaa université dara passé ko. moo ne université baa nga nële. ne daara moo doon laa bëgg mooy la mu ji nii sax ñu naan jàng xal jàng xal Alxuraan rek tari moom nga bëgg mu ne daara jàng nële doomu Cheikh Omar muy jàng ak ñeneen jàng majalis nga xam ne baat bi dañ ko wax ci arab firi la ko ci olof. léegi léegi boo demoon ci mbaram fekk ko fa te ba léegi mi ngi jàngale. Hmm? nga ne franco arabe laa bëgg. école baa ngi nii hmm? nga ne mënuma daara lu may sangam liw mooy nga ne nga ne mënuma lu may nelaw mu ne tabaxal ne néeg boo xam ne boo fa nelaw ba jant soo kenn layee ma nga ne néeg bay baa baa nga ne dégg nga loolu doyut li ma ñu def sa moo gën ñu def bàyyi ñu ñu ne kon nag njàngam français dafa war a mën a am mu ñaan primaire ñu may booy dem yoonu keb bi mooy mooy mooy taxaw booba ci ci sota hmm? kon damay wax ne xëy na ñun dañoo yàqu sa teel waaye lu lépp lu ñun war a dundee ñun moom lëggéel ñu ko suñ kër bàyyi te duñ ko jigaani fenn de def na ki ñun waaye nag wax na wax joo sax de mu ne mu nekk ker duñ ci mbaar de ker ker duñ ci mbaar te it ca dëgg-dëgg ne ca naaj wa jàmbat ñàkk kenn du ci kër gi jàmman ñàkk ko dégg dafay ne naaj wa liggéey ba sonn man ndax mu ne ah, waaye defuma dara ma dara kenn du ko jàmbat ku am jom wax de defoo dara nee na am dara nga jàmbat ko ah, warta mën a am de kon nag li muy war a liggéey mi koy liggéey te yàlla xam na ne ji nga boo paasee pont noir ngir jëm nii hmm? jëriñu ci taalu bi sëriñ Baye Niass la mboolem tey tey koo dégg mu sañ ci boor bi ak ku mën a doon fekkoo fa tuubeen fekkoo fa kenn ku ñuy jox wirdo fekko fekk nga lépp mokk nga daw fe sañ ci bay bi muy ñëw fi fekkul benn taal bi wala mu fekkul lu tuuti la waaye ab toolam moo gën a neex a dox de tund yi bay bi ne hmm? ku bëgg xotti ci taalu bi bëgg jëriñ ci taalu boo fi duggee jëriñ bàyyi na mu ne taalu ku ne waaye fii niñ mokkee feneen mokkee wu ko waaw ba tax na gën ci liggéey bay bay kenn laa wax kenn gën ci liggéey bay bay waxuma na ngir bay bi mooy sama baay waaye lim liggéey rek laa wax gannaaw nag ndaxal wax dafa toj kenn ku ne wax wax la neex ku ne ku ne ràngal maqama ku la ku la neex ñu ñuy wax lii dëgg rek waaw lii dëgg rek bay bi dafa daan wax ne du ci leb du ci fay bor du ci gaaral kenn ndax ñett yi bu ci xam rek mu génn yàlla boo fayee bor yaa moom la boo ci leblee yaa kooku la boo ci gaaralee tooñ nga benn baaxu ci kon nag waxal ngir yàlla rek ku ko gisee nee nag moom la engagé waaye waxal dëgg lii dëgg rek am maa nag fi àddina bi toll ni wërsëg wiy doxee maa ngi koy wax sama bopp bopp di ko wax ñépp bu ci kenn mar tax naan pooti ndox mu neex mi du jeex de fa nga wàqee gas-gas bay bëgg a dee xamoo amoo ndox yàlla mën naa tiw xiin léegi taw nga taatan nga nàmbalisal moo tax mu dëkkul fenn tey jii àddina bii ñi gënoon a néew doole tey ñoo féppale te wërsëg yombul kenn njub rek mooy li baax bay mbay daf ñu daan wax ne te wax jii maa ngi bëgg ñëpp di ko déglu dama koy wax sama gone yi di ko wax ñëpp dama ñu daan jàngal fii ci ron mbaar mi ba mu mel ni jàngatu mu jël weer yi ngànk ko nii noppi mel ni jàngaletu nañu maa ngi leen dénk ñetti yëf nangeen nangoo sonn ndax ngeen mucc ci ku nangutu sonn doo ci mucc waxi bay laay wax ngaa lekk taxawaalu nit soo ko loo lekk ak lekk lu xaraam ak xam soxla dem ci mu di wax wax joo xam ne neexut la te boo réewul saaju du faju mu ne nangoo sonn képp moo ci mësul nit jooju wax wax wax ji leer na te nit kenn mënu ko moom ku dul yàlla dégg nga nag li ngeen dégg bu fekkee doy na leen mu fi bu leen doyul su ngeen xamee leneen laaj lu ngeen lu ñuy laaj mu wax dégg waaye lu mën a xew moom mi ne kenn ku ko raw ni benn moroomam bu ko raw ndax moom daara ji ci la juddu ci la yaru ci la béjjaaw ba bis yàlla tey mi ngi jàngale kii jàngale ci mbaar mi moom mi ngi ci néegam di déglu lu ci yàqu mu ma mu jubanti ko kooku ba tey mi ngi jàng tey dafa dégg olof xam nga nit mën a jàng ba ne alhamdulilah ju def te mënoo wax olof yi ndax dégguñu olof ku dégg olof nooy waxee olof ñi ngay waxee dégguñu arab jàng am nga xam-xam mais noo ko mën a dugale ci boppam nit ñi nit ñi duñ ko déglu xamuñ ko dégg dafa dégg olof waxoon na ko Médina waxoon na ko fii jéeg janj du tuddee am mbayam te jéeg janj ndamang ndax jànj ku ko baykat yaa ngi nii kii baykat la boo bëggee bay janj loxo bu tooxoor sox sox bu damm loxo loxo bu damm sax mën na cee xam janj moom dégg rek loolu mooy boo fekkee ku yàlla këlifaal may ko daraja soo ko mën a màggal bokk ca bokk ca la ko yàlla def waaye boo nanga ko fa dëkkati fi na taxaw na dégg nga te mag ñi li ñu sopp kenn mënu koo dindi dégg kenn mënu koo dindi waaye nag fokk ñu nangul ngànt li li xew xam xew kër ma jibel gii wax naa la xay hmm. waaw kii ji du fekk ñu ne xay nga ne ana xay hmm? sa maam Serigne Bay daan génne daan génne lal bi ci xay gi foo romb di ko séen boo koy doxi te yëgoo ko booy kii foo nga bëtt sàkket nit ñi jaar ci loolu dañu xamee koo xam ne xamul maam Serigne Bay xamul xamul kii fekk na lépp neex départ yomb lépp yomb dara jëfewul ah waaw yëf yooyu bu doxee ba egg ci yow mi nga xam ne xamoo yëf yi li ko fondement ndax dana baax waaw bi mu egsee ci loxo loolu doon dimbale nga war nga laaj ñi fekkee démb nu ñu daan defee mu ne la nii la nangoo laaj kenn lu may nii la ñi la war ñëpp kenn bokku ci yow te kenn ku ne dafa bëgg dund bëgg dund ci yow seex luñ sa amaat waaye luñ luñ la neex lu leen neex ñu wax la ko te yaakaar dañ ci kontaan ñu indi loola hmm? nga di leen déglu dana sotti ah ñit ko bayul góotul góotu bayul góorul xeetul dañ ko déglu ci déglu ci seere kooku war naa wax ci seere nga di ko déglu moom bayul góor wéetu lu mu ci xam kañ la gi ñor xam na ko kañ la ba bàcce xam na ko dugub ji ñor na euh, euh, nit ñi jigéen ñi nango nango ñoo bojj machine yi bojj sa machine heure bi ñu génn xam nañ ko ba te ba seere tey bii ni manqué na ndax lan nit ñi nit ñi bojjguñ hmm? seere du nu muy nu ndax malaaka yi ñooy wàcc dugub ji nit ñi eh, dugub ji nit indi maam laa jab laa ñes waxoon ne boo bëggee foo joxoñ jant génn mu ne dee joxoñ ci penku bi ñëpp xam loolu foo joxoñ génn ah, na ci na de waaye <laughs> bëj saalum bëj gànnaar ci génn hmm, da nga yàgg waaye jant penku rek <laughs> mag mag ñi dañoo samp seen yëf dañ koy ñaan yàlla aw fi mag ñi xaw mel ni mag ñi hmm. ku topp seen ndigal barke ku bàyyi seen tere yàlla musal la lii rek mooy wax ji leneen nag amul leneen dëkk na la ko samp du ko tas pour man laa wax de hmm. duma xalifa dénkuñ ma dara waaye taalibe laa te bëgg naa bu baax waaye man bu fekkoon ne tey maa yore kàddu gii baat bi ma yore siyaare siyaare Baay Ñas bii pour man danaa fexe ba xam ne mooy gën a ko bu gàmmu xamoo tax yéen ñëpp xam ngeen ne àjjuma ji passé ban ban yëngatu diine moo am fenn Baay Ñas moo ko moom mm-hmm. exploité am nañ ko suñ topp am nañ ko àjjuma ji passé kan moo bokk Baay foo digg xewam dine rek moo ko moom man tey gàmmoo ku mu neex gàmmoo fu la neex waaye siyaare benn tali wuru koo tax fu muqaddam nekk ci àddina bi da ñëw seytaane bi dana ñëw muy congrès pour ngeen mën a dégg wax ji buñ ne gàmmoo ñëw na gouvernement bi di xeble dajee kër gouverneur alors mbir ñu ne ko fay dem ne fa tey Aliou Diop dem kuy dem lew na ñu ne na fa Babacar dem kuy dem euh, Ndor ñu ne na fa diw dem fanweeri gàmmoo ci benn dëkk ah fu nekk gouvernement bi eble fa waaw bu ñu demee ba ñëw nag ndax dañuy wax ne waaw mbooleem gàmmu yi yëpp benn xamut sa lu may lu gàmmu bàyyi dañ koy def duñ ko def ñëpp la ñuy yemale rek waaye bésu bésu siyaare bàyyi rek am bés bi gouvernement euh, gouvernement bi ñëw wax seen solo ñun ñu wax ko ñu bëgg ñu jël dossier bu yóbbu ko buñ ko traité dañu xam ne ñu donga la lii lañ wax te dañ ko déglu mbay bi bi muy wax ci kanam bàyyi ne wax doyatuñu ci député cib ministre te boobu si si jaar nga toog cib taalibe ku mën a doon wax doyutuñu wax ci lu am mbaali am wax ci la mbaal yi xamal lu loolu neexatuñu dugguñ ci loolu loolu la ko bañ waxee te bàyyi ngi te waxu war a wax loolu kilifa dañ koy waxal kilifa du waxal boppam dégg nga ci kiriñ su jaaman yoo xam kon nag lu mën a xew yëf yi yàlla ko yàlla delloo fu fu hmm? nit ñi nag ji nga waxtu woo séddoo ba xam ne yàlla sédd la nga ah? sa cër bi ci nga xool ne ne dara yàquwut yaa jagle waaye ji jagle buñ te am na xam ne bu ñu ko defee mu gën a jag hmm? kay lii dajee mbir la di dajee banque banque banque banque Alfayda mën naa am hmm? banque Alfayda mën naa am tey li ci hmm? lépp bu ñu ko juróom verse ko ci benn banque mboolem doomi Alaaji Ibrahima Ñas kenn ku nekk ñu jox la sa dépense weer jox la sa carburant ñi am oto ñu utaleen oto ku ci feebar ñu faj la courant bu facture bu ñëw nga nga jox banque banque bi fay ko ordonnance bu ñëw banque bi fay ko hmm? taalib bi ku am compte ku am ku am xaalis def def kon kon kon ci ci banque bi bu bay jotee ñu lebal baykat yi ñu dem bay commerçant yi ku ci bëgg daanu banque bi lebal lebal nga dem liggéey ñëw ñëw ñëw fay fu ci nit amee xaalis indi ko ci banque bi hmm? état jël ci ñun ñu dem ak suñu bopp ñun lu ñu xam kon di xalaat état hmm? danañ ko jox lay xaqam waaye danañ moom moom suñu bopp bàyyi la gën a def dañu ñaan ko ansaaru dënd yi ñëpp dégg nañ ko bàyyi moo wax ne nañ ko nose comme ngoo comme nguur yu mag yi yéen a ko dégg bàyyi bind na ko wax na ko di ko baraam jàng loolu mu ne nañ ko nose comme nguur yu mag yi hmm? nguur ko amul leneen dégg nga bu fekkoon xaw na fi walaw taalibaay du ñàkk taalibaay du ñàkk xibaar yaa ngi nii li sama ay jiw bàyyi ba wax li passé boo xeebalee sax juddooguñ du bàyyi wax ne tabax ay jumaa gas ay teen samp ay faraat nangam nangam bàyyi ba muy wax loolu xeebaa dafa commencé loolu lay sàcc rek di ko jëfandikoo waaye ñoom fi ñu tey koo gis rek gannaaw xaalis xam-xam xam na xaalis xam na buñ jubee buñ jubul foog ngi dem kii bàyyi na nekk ci lu leer ñaan yàlla liggéeyal yàlla ku mu nga taxaw lu wax mu barke nit ñi bëgg nañ ko booy ñu ñu ñu nangu la bàyyi ah man de maa ngi am yaakaar ndax lan yaakaar bi kii yàlla tàgg tey woote la ma ko de ma wax li damay wax la xew rek alima yaakaar fekk na jamono bàyyi di borom xam-xam bàyyi jógee fi mu fekkee sëriñ Aliou fekkee jarbaatam imaam Asan mu nekk imaam fekkee xalifa ak alaji fekkee xalifa ak sëñ daam fekkee xalifa ak lii dund ko xam ko di mag di borom xam ko ah yaakaar naa ne bu lëggee dana tax te it yaakaar naa ndax keroog bi ñu siyaaree ba ci ngoon bi ma ñibbisee ba aw na laa dama tëdd géntu mbooloo ko wër ci rawdu yu sallallahu alayhi wasallam ci Madina hmm? mu toog ba ci mu tàllal loxo mi ne jox naa jox naa loxo ne jox naa loxo yonantu ba mu ko waxee man maa ko njëkk jox loxo waaw bisimilah xam nga loolu yaakaar la hmm? mandal mandal mandal nga ma yaakaar kon nag ñu ngi ñaan yàlla génération bii yal na yàlla xamaleen Maolana Cheikh Ibrahim xam la mu bëggoon lettre bi ñëpp sukkandiku ci ne lii la bàyyi wax ñu def ko ku ci nekk am na parce que bàyyi def ne dëkk sax bu fa ñett ni nekk nañ ko def loolu la bàyyi bàyyi xamoo bu njëkk bu njëkk siyaara mooy congrès buñ ko yëgee buñ ko yëgul hmm? ñetti kàddu rek moo xamoon amul ñeenteel amul ñeenteel bu gouvernement bi ñëwee ñoo daan njëkk a wax buñ paree bàyyi na sëñ bay tontu mu tontu bu tontoo ba pare bàyyi wax ci taali bi rosi seen xol yi ba ñëpp gën ne ñu ngi ñu ngi aljana ba déwénati xam nga ne siyaara moo doon moo doon gën a ko mu gàmm ci la message yëpp di dem lépp lu ñuy joxe ñu jox ko ci man boo man tey jii ma maa yore ba di nii mboolem ministre ku ma bu gàmmu ko téye bu gàmmu ñëwatee te téye leen seen bopp bu mu kenn defal daal waaye siyaare nañ ñëpp ñëw waaw ñëw kon nag yal na yàlla dimbali. mën a fàttali papa si njàngu sëriñ bi Cheikh Papa Papa El Hadj Bara. waaw loo ñu mën a fàttali si njàngam. si njàngam. Hmm. ñun nag bokkuñu moom dër fàttaliku naa ko ni bay mbe ji leen jàngal moom alaaji Mamad Modou Ndiaye ak ku ñu daan wax ma jaañ ak ñu Moustapha Guèye loolu fàttaliku waaye moom kenn jàng kenn jàngalu pour bay mbe waaye nag ñun bokkuñu moom jamono moo fekk na ñoom ñu pare seen njàng waaye nag demu ci daara kenn firi alxuraan tam waaw firi alxuraan tam yàlla may na ko lii day mosuma ko noonu lu wax dëgg yàlla mais dama tukki dem Nigeria dajee fa ak imam Assane Cissé ci kër gorom la alaaji lawal baraaw ñuy waxtaan ba ay deux ci guddi maa ngi moom wala une boobu néeg bu yaatu la ñoom ñu fa dem xam nañ ko lu mat juróomi lal mu ngi ci boobu mi boobu mi nagutoon ni mel ni le mu tëdd ci lal bi ma tëdd ci lal bi ñun ñaar ñuy waxtaan ko mu ne ma am na yaay baraam ma ne ko mu ngi fi de moom imam Assane yàlla ko yàlla bu fekkee huit victoire lay guddee xam na ko ma ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ma gëstu naa ne mboolem sëti maam Alaaji Abdoulaye Niass ma moo ma ko mu bu fekkee victoire lay am na ko ko juróomi ñëw na fii lal wala mu ñëw mottali wala lal sax ne na ma ñaanal ndax ni mu ko mënee laa ko mënee waaye yàlla mayuguma mayuguma possibilité bu ma ko defee def na ko benn yoon mu sotti bu ñaareel ba yëggut ci la génne àddina su amee ñetteel maa yi moo ci nekk xaddi yëpp moo ci nekk kon def na ko fii firi na alxuraan benn yoon firi na mu daan firi moom mi ngi ko ci fekk mu ko maa ko enregistré ba ma téeméeri ak ak ñeent mu ngo loolu gën naa leer dégg te ba léegi mu ngi jàngale ba léegi hmm? léegi-léeg nga fekk man dem naa dem naa ci àngale ba dëkk bu ñëw kër jarga taalib baax bu ñëw baabu safi taalib bay mbay la woon ma egg fa ñuy waxtaan mu ne ma am na benn sëriñ fi naar bu fi jaar ba kii démb de ñuy waxtaan mu ne ma xaw ma kenn di waaye sëriñ bay de am na xalifa mu ne ko man de doxkat la waaye sëriñ bay xam na xam ndax sant yàlla mooy la nga waroon a def te boo ko deful ñu yedd la kële ca xuutu kële danga ko ñaanal nag ñu ngi ñaanal njaboot bi mooy xam ba kenn ku nekk kër gi mu la jox wala kër gi nga xutal sa bopp nga mën koo liggéey ba su ëllëgee lu gan yi bari bari bari kenn ku nekk bu ci jëlee la war a ganale yëpp day xoyof day yomb yàlla yàgg xam nga damay wax benn baat ñu bari di ma ci ree du xam ngeen càkkaar ah càkkaar yëkkati càkkaar ñaar rek koo yëkkati amul ñetteel njool ak ndaama rek waaye ku ne dafa am loo mën ku ne xam ne ne sëgg lu diis nga sëgg yëkkati ko ndaama moo gën a dëju moo ko daq njool waaye bu taxawee ah ñoo ko dana xam jom yi du taxaw feneen day dem guti bant yu xam càq ni roof ci rek fexe ba mu tege na tege rek ñun ñëpp ko soxla loolu mooy àddina bi kenn mën a dem sans kenn ku ko ci jéemee ngay dem ba ci xam nga paralysé mënutoo dem te la nga liggéey lépp yàqu waaye bu fekkoon ne ba nga jógee nga jóg ànd ak keneen ki jàpp ki jàpp booy tëll la keneen dem du yàqu ñun ñëpp yàkkamti kenn ku ne tey boo jógee tey loo commencé tey ne topp soxal mbaa mu sulli <laughs> ji tey mu sax tey meññ tey nga lekk tey loolu loolu yàlla def ko fet dégg nga ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu ko fi yàlla baal te bañu ñun tam waaw na ko yàlla yàggal te yàggal ñu allahu hmm? mboolem ñi ñu nekk mbir na hmm? kuñ ci joxo joxoñ baaraam nga fayu sa ragal kooku bu la neexee dañoo làqu fii kenn du fekk xam nga fii xam nga bay may daf ñoo may may may indépendance xam nga indépendance dafa baax indépendance may waaye nag dama koy baaxut sa de nit dana am indépendance te doo am liberté suñu liberté gën naa yàlla moom li nga fii démb démb hmm. dara sooyul kër ma jibil dara sooyul njaboot gi lu may alaaji baraam dox la maa la wax lii dox la rek dox la baatu alaaji baraam dox hmm? waaye bu doon ne ah lii bu jib ne way naan jaan jaani ñànk la ñuy taxañ def ci mbuus lu ñu la ñuy bàccee laal taxañ def ci mbuus bu fekkoon fu ñu ko bàccee laal mu te ñu taxañ def ci mbuus ñun ñëpp daw nañ wuti bu ñaaw waaye ni nga ko nànkal kenn du ko laal de waaw waaw ko nag dégg nga lii ma wax yëpp bu ci def doon dara mam xam naa maandu noppi duma wax dara bi mu ko defee itam xam naa maandu wax ko te duuma géwélam du ma lennam waaye nag nit bu la wuutoo ca la nga waroon def ba nga tal sa bopp ba mën defal sa bopp te la muy def yow la war da ko gërëm da ko ñaanal yàlla tagguma ko nag maa wax li am rek te li ma am li ma wax ñun ñëpp a mbokk mag jàmbur ak ñëpp a ci ñëpp ñoo ko jësuñ bopp yàlla na ko yàlla dimbal ak mooy njaboot yàlla yàlla tàggal leen respectante xam doom yi yàlla jubal leen buñ màgg ba xem ni seeni baay hmm? gis ne suñ bàyyi moo fi def lii tax ñu bëgg yëpp seen bàyyi ndaw liñ ko jox kuñ ko jox nga dem saasam la te mooy suñ mag yàlla jox ko mu taxaw li muy taxaw ñu gërëm ko ñaanal ko waaye doom na implacé loolu dama yàlla booy dimbale yéen itam seen métier mii yàlla barke jiirab juróomi at yi wala juróom-benn at loolu la réer ci péeb Alaaji Ibrahima Ñas bëriwul yow it loolu nga jàng kon pays bi dafa soxla lu ne ñuy am ci maam Alaaji Ibrahima daf ne balaa baax fu ne fa waaye bu gan ñëwee ñëw ci cérémonie kër jo ba tay euh, kii dajee koo xam ne xamu dara laaj ko mu wax loo xam ne xamu ko mu bind loola hmm. yéen ñi dëkk ci pays bi te xam pays bi te xam li fiy dox dindi ko ne li nga wax du loolu amul. Hmm. ñun source leer lañ am nii la demee nii la demee. Hmm. te fi mu ne gannaaw bind wax rek moo moo moo xew te ñu ngi bind lu ñu xamul ñu ngi ñu xamul ñu am ñoo yéen ñi ko jàng ngeen nekk défense bi dina. incha allah noonu la. yàlla yàlla boo dimbali yàlla jàppale yàlla ñu tey lépp yomb lépp yomb man ba léegi maa ngi am loolu ma métti loolu la ku fi lépp moom lépp di xëy ñaan dépense jaadu lépp a ngi ci sa loxo lépp a ngi ci sa loxo tuuti lépp di ñaan dépense jaadu ku commerce boo xamee tono yaa tax ku bay boo xamee mbay te bu yaa tax ku ñaan boo xamee li yow lépp yow la àdduna bi ñëpp a ngi lay déglu nga na ba mënoo am départ boo koy jag jag la waaye jagul waa ji waaye nag li ko def nag foo fekk borom kër ak yow doom yi yëpp doo waa doo waa ji waaye borom kër ak ngër ka doom yi duñ mën dara dara dara jigéen ngër ka doom yi togg sax duñ ko mën sumbi sax duñ ko mën jigéen ak ngër ka jigéen ngër ka doomam sumbi sax du ko mën xam nga tax lu mu sant doom ji mu ko mu nangu ko ci loxo toppal fa mu noonu dara mu dem waaw ku yimul nooy ma ne bàyyi ñeex nag dafa ñëw nekk sëriñam ngër ka def ci jamono loxo ci loxo ci jamono moo tax ñu yàgg yéen yàlla ma ñu xam liggéey bàyyi ba góorgóorlu dimbali waaw nag yëf yaa ngi seen loxo nag yéen génération bii hmm? bu la neexee rek mu jàpp waaw bu la neexee rek mu jàpp waaye nag ka ma yërëm xëlëg mooy mooy mooy ki leen xamut xamut jamono hmm? tey xamut dëggu ci yàlla pour xamal leen yii du yomb de hmm? xam ne day day dégg loo loo déggu di gis loo gisul xormaal la bëgg nga jiitu ko te xamul mooy kan soxna Modou yàgg na yàlla nañu ci a ngi def bi yàlla nañu ko yàlla na yàlla jàppale ñun ñëpp yàlla sellal suñu xol te rafetal ko kenn ku nekk yàlla sellal sa xol sell boo xam ne sell boo xam ne da ngay dem ba xóolu yàlla ne mbedd moo jaar sax bu nekkoon yàlla mu xotti ko wan xol wan bi nit ñi bañ xam ni nga mel yàlla kasaat yal yàlla ma xeggale foofa nga xam ne doo am problème ak kenn kenn kenn kenn kenn du la teree nelaw doo yem dara doo jaaxle dara lu nit man a xam da nga ko yéene te ñaanal ko te xam ne tey jii nii mën naa noos ba bëgg a dee bu ëllëg yàlla jox ko ëpp bu ëpp na waa kii mu jëlee lii loolu yàlla rek moo ko mën. Eh, ñu ngi toog mbubb yi wuute ñii ngi weex la ñuy ñuul ku nekk nangam waaye. Hmm? Hmm. ku ne ma yow sa yow bi gën a rafet sama ñëw sax xam nga xam na hmm. waaye. ñeen naa ci noy noy yow dañu noyee moo dàq li ngeen noyee kan moo ko fi yëg <laughs> amu fi yàlla buy dimbali jaam yi ku nekk dafa la jox ba nga foog ne yow rek yaa barke Baye ma yàlla yàlla fa ci naa ngeen